asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ndeye Comba Coulibaly madame Mbaye bokk ci troupe Soleil Levant di interpréter personnage yu Madre Pis borom la mu dof bi waaw eh, danga ma dellu si waat ci loo xam ne dama koy delloo si de vers les années soixante-dix loolu laay dellu si wala plus bien que avant 70 69 68 loolu laay def parce que man bi ma dalee commencé def théâtre j'avais sept ans ma commencé def théâtre j'avais sept ans maa ngi ko commencé ci troupe bu euh, sunu ASC some association sportive et culturelle bu SOM ñu tuddee woon troupe troupe bi la renaissance de some foofu laa njëkk juillet jouer di fa juillet di fa jouer ba am presque xam naa dix-neuf ans vingt ans après encore tamit ma dem euh, di continuer muy vacances laa doon def loolu mais bi ma demee sixième au CM Escale ex CM Ousmane ex Escale ma fay jouer ci troupe bu ñu defoon foofu troupe bi euh, sunu metteur en scène mi ngi tuddoon euh, sunu directeur artistique mi ngi tuddoon Massar Talla Diop sunu professeur français à la fois anglais. foofu tamit def naa fa de la sixième à la troisième ma nekk fa comme artiste comédien defe naa ne jël naa fa ay trophée yu bari bari foofu moom foofu moom am naa fa ay trophée yu baree bari le vent moom troupe boo xam ne sama dañ ko créé fii ci Thiès biñ ko créé sama grande seur bu ma bokkal ndey ak baay mooy sama taaw moo créé troupe Soleil Levant bu mu ko créé nag Euh, Ndeye Fall Ndeye Aysata Coulibaly ñu koy wax Ndeye Fall waaw euh, moo créé troupe Soleil vent bu mu ko créé nag si la ñoom jël ñoom saa Saneex euh, Cheikh Ndiaye Aziz ak groupe bi yëpp ñu ñëw àndandoo di bokk même di répété bi demee ba sa biir moom mu retiré wu bàyyi xale yu góor ñu nekk si troupe bi bi ñu nekkee si troupe bi ñu ak ñoom ñu nekk si di liggéey. ñun nag dañu liggéey des années maanaam dañoo nekk comme ni ma lay waxee rek ni ñu naan mbëri dañuy mbapat ñun dañu yàgg mbapat balaa ñoo kenn xam dañoo nekk ci tournée lu yàgg di répété di répété ay scénario di teg di répété ay scénario di teg ba ñu njëkk génne sunu téléfilm médaille bi defe naa ne loolu lañ def te bu ma la waxee médaille bi pas mal de téléfilm yu bari na yu ci yu ci tegu balaa wiiri wiiri di ñëw bari na yoo xam ne jaar nañ ci muy ay téléfilm yoo xam ne euh, si si 4444 bi 4444 bi si la ñu njëkk a teg euh, médaille bi. film yooyu <laughs> film yooyu boo jël rek da ngay da ngay da ngay da ngay danga naan bii mooy bi ma ci marqué waaye boo xoolee man man euh, tolof tolof tolof dafa nekk film boo xam ne wóor na daf ma daf ma parce que film boo xam ne la téléfilm boo xam ne bi ma koy tourné dama ci sonn dama ci doon dama si sonn ndax dafa metti dama si doon joué role boo xam ne man maa doon jabaru Saneex euh, Saneex dafa amoon doomu jiit dama amoon doomu jiitle muy Ablaye saw man maa nekkoon tantam jabaru papaam yaayam laa doon wujjee yaayam gaañu mu nekk fa te man tamit ma am sama beneen doom bu ma nekk ci kër gi sama doom bu jigéen muy Rakki Gueye ma ci doon def loo xam ne ma maa détaali dama sonal liñ naan rek kumba am nday kumba ak amul nday la woon waaw ndax dama naan wax rakki moo doon kumba am ndey eh, laay saw moo doon sàmba amul ndey defe naa loolu la woon ma joué ci lu metti dama daan def répétition dama daan joué pare ma pare damay jooy jooy même tournage suñu parewaan rek damay jooy ba sonn yàlla nattuma nag liñ naan nattu yàlla parce que artiste euh, du ne man duma ma def luñ ma soxlaa rek dama koy def artiste bu ñu ma waxoon damaa war a def sax yaramu neen ndox ci mbedd mi dama ko war a def parce que yow yaa yàlla def ñu indil ma wiiri wiiri mu xaw a xaw a nuroog ak tolof tolof mu xaw a ak tolof tolof kële yaay la bii nag goro la mais nag mu gën a gën a pire ma ne nag rôle la ma daal di ci d'accord joué ko dama lay nettali benn dog dem ñëm naa wàcc ci benn tata di dem marché benn femme mi ngi jóge États-Unis nekk ci kat katam damay toll musée wàcc tata bi rek ne ma ne naa jéggi noonu dugg ci marché bi fi ñuy jaayee ginaar yi mais femme bi bu mu bi ma traversé tali bi bu mu tëlee buntu portière otoom gis nga ma détaillé keroog jakartaab da ko naroon yéen. bi mu ñëwee ba ba man maa ngi dem ci ginnaaw mu féete ma ginnaaw rek gis nga kol bi mu koloo woon la yëkkati rek dindi ko daal di ko lonk sama baat bi ne ma yow tey bu ma la rayoon tey nag da xam ne kii kii affaire bi daf ko dugg après ma taxaw ne ko ah bu ko rey boo ko rey boo boo boo boo ma reyee rey rey yaayu jibi de dootoo rey yaay seexu naa waaye yaayu jibi ngay rey muy sama doom bu góor <laughs> xam nga. Euh, mu nekk loo xam ne nit ñi ni ñuy dundee euh, aar bi day dem ba ñu dugg ci biir rôle bi que dañ lay teg ko soxor man toog naa marché central taxaw di xaar su benn bis pour dugg ci benn waaye ji jaay jën ko teg ci dàmba daan ma commencé di ma takk di ma takki ne nag naan ma bon soxor ma ne ko ma ne nii ma noonu ma muuñ mu ne ma ree tontul boo tontoo léegi di nga xam maa ngi léegi bi bis bu ñëwee ma dugg si xam nga man damaa mën a tooñ ma ne ko mbëllee daal ne ko mbëllee def nii mais waa dafa dafa dafa yenu dàmba tata bi di daw naan ma soo taxawoon dinaa la ko sotti bon soxor iñaan yow doo am jëkkër yow leer na ma ne amoo jëkkër <laughs> waaw waaw dangay xam ne doo ko ko doo ko doo ko mere daal da ngay xam ne peut-être que rôle bi nit ki dafa dem ba dugg ci biir role bi waaw loolu la. wiiri wiiri waaw wiiri wiiri moom euh, nekk na pièce boo xam ne euh, li Sénégalais yi di dund lañu doon tourné Sénégalais li ñuy dund moom lañu scénario bi loolu lay dox boo gisee muy wi taxaw bii taxawaay am bii succès danoo joué li nga xam ne mooy réalité des sénégalais li xew ci biir kër yi li xew ci service yi li xew ci àdduna bi en général parce que boo xoolee bépp société société la affaire bi di laalan ah, du société sénégalaise rek même sous raison bi affaire goro même sous raison bi dafa dafa ci am affaire nit nit nit ak jabaru doomam dafa nekk loo xam ne dafa kii soo xoolee Jojo ni muy joué ak ainsi de suite euh, nit ñi soxor bi haine bi ah dafa am ci société bi dafa am société bi te ñun li nit ñi dund loolu lañu li ne ci biir kër yi loolu lañu loolu lañu reflété loolu lañu génne loolu moo tax mu am benn ampleur bi saabu nag du <laughs> saabu du fóot boppam eh, waaye man ndey ma mama Teresa la man mama Teresa la fii nga toog sama biir kër su ma génnoon taxaw ci mbedd mi tuuti rek kër gi day fees dell te bu boobaa di dégg témoignage eh, nit ki nag mënoo waxal sa bopp hmm? nit ki mënoo waxal sa bopp peut-être lil naan rek loo xam ma demba ma demba gën laa xam boppam euh, mënuma mais euh, peut-être que pour ñu wax ne soxor man xaw ma fan la soxor di nekk ci nit man xaw ma fan la iñaan di nekk ci nit parce que dama dug juddu ci këru diine kër goo xam ne këru taalibe cheikh la may taalibe cheikh ma du dund juddu si yaru si màgg si kon defe naa ne Eh, muy tuuti imaan bu nekkee sa xol doo soxor dangay am esprit d'entraide dangay xam ne doom géej la damay weer waaye xaw ma kan mooy weri dangay xam ne tamit peut-être que man mii mm, waruma soxor ndax lii mën naa koo am mais sama moroom mën naa am lu ëpp li ma am waaye manit mën naa am li nga xam ne maa ëpp mën naa ëppale keneen kon dangay daal doylu jàpp doom yëpp ñuy sa doom te doom ji li sa doom mooy ñi nga jur ñu jigéen ñi ne ci kër gi duñ sa doom xam ñen ñooy sa doom sa doom yi sa jabari borom doomu yu yi ñëw di dugg sa kër ñoon ñooy sa doom man li ma joué tey si su fekkoon ne dan naan man loolu duma ko def te man xam naa ne juddu ma fekk sama kanam sama ndey di ko def juddu ma fekk sama kanam sama mag di ko def sama mag bu jigéen bi may wax am na goro xëy na man amaguma ko waaye am na goro waaye xale boobu tey ah buñ demoon laaj ko kenn du ko xàmmele ak doom yu sukk jur ci kër gi man suma benn doom bu jigéen bi ma am xaritam la waaw xaritam la man day waxanteeg man comme man dama kaa sukk jur maanaam day déyanteeg man te loolu defe naa ne buñ ko mayuloon jàmm may ko kanam gu leer ubbil ko sunu xol loolu duñu ko duñ ko am ci moom kon defe naa ne rôle bi role bu ma interprété la rek mais pas Ndeye Coumba ce n'est pas ma personne Ndeye Kumba en quelque sorte maman Teresa la yaayu ñëpp yaayu ñëpp macha allah. <laughs> Euh, man daal euh, théâtre bi li ma la wax rek leen dama la wax ne la nit ki moom bu fekkee comme dañuy commencé di dox dañ doon raam ba si yàgg ñu jóg di dox nànk ragal naa ci kàttanu yàlla coono bi ñu ci daj yàlla dina may ñu ñu savourer les fruits te tàllal nanu sunu borom sunu loxo ñu toog ba savourer les fruits man di dama ne coono bi ñuy daj ci aar man gëm naa ne yal na yeex yal na yeex balaa nuy dee dinañ savourer les fruits te man loolu lu ma gëm la te nee naa man ñun lii ñuy def film la ñu ñun film la ñuy def ñun long métrage ñun xam naa ne man soleil levant du man de waaye waaye soleil levant man xam naa ne loolu mooy seen loolu lañ gën a mën xam nga niñ dañ def ne woon soleil levant comédie la mën buñ la dikkalee ci drame def naa ne fan yii rek ci wiiri wiiri nit ñi xam nañ ne soleil levant drame bu ñu bëggee drame dañuy drame ba Sénégal gépp xam ne dañuy drame def naa ne ñun def naa ne wiiri wiiri wane na ko waaw moo tax defe naa ne euh, sunu ambition yi ñu am ci théâtre mooy fii ñu toll ñu dépassé ko ñu dem ba ca kanam te nag bu dee liggéey moo koy may rek ak ngëm-ngëm ñun xam naan dinañ ko am ndax liggéey baa ngi fi den ko liggéey te borom xel ya xalaat yi muy sunu metteur en ak sunu scénariste hmm, ñu ngi fi ak ñun ñi lu ñu yàlla may ah, ndax nag. ki lay jàngal tam dafay am yeneen yoo xam ne yaa ka ciy def dañ naan nit ki dina togg waaye il faut mu def ci ay épices pour togg gi saf. Mhm. Diamond House bi Diamond House bi joué gu ma ci waaw joué gu ma ci ah ñi ngi déglu rek parce que ñun xam nga dañoo nekk ñoo xam ne ñun euh, dañoo nekk ñoo xam ne troupe lañu troupe bi dafa am ay njiit te njiit ñi kenn ku si nekk rek rôle bi ngay joué xam nañ la. kenn ku si ne place sa place xam nañ fan la euh, ragal naa ne kenn ku si nekk rek te ñoom ñoo ñu nekk ci Diamond House ba les Aziz euh, le scénariste le metteur en scène Cheikh Ndiaye saa neex ñooñu euh, ñoom lu ñu lu ñu sóob boole ñu ci ñoom lu ñu sóob boole ci surtout nag man ak Binta Samb dañuy wax yéen ñaari maire yi ndax yéene nañ ñu trop lu kawe seen lu weesu ñoom lii ñu am. moo tax li nga naan ambition yi ma ragal naa ne suñuy ambition te nekk dans la vie il faut être ambitieux te boo ambitieux rek hmm, ba pare am vision ambitieux pare am vision man ragal naa ne ñun ah nañ dem gisaguñu dara sooy levant ca kanam la jëm macha allah. <laughs> mais séquence ban ban séquence par exemple. ci wiiri wiiri wala bi nekk actualité <laughs> mbay ah, mbay jaaxal nga ma yow mbay am nga jom ah yow mbay ma jur la fa ma la war a jure ngay doomu nit ku baax mbay ngay jël sama kër gi di ko tayle sama patrimoine sama titre foncier bi waaye nag doom ja ndey ja buñ ko waxee rek sa ndey baaxul waaye doom ja baay ba buñ ko waxee sa baay la sa baay baay bu nekkee baayu àngal doomu Carrefour lay jur sim <laughs> mais loolu xoolal loolu loolu dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi. <laughs> waaw maa ngi leen di sant yéen waa Thiès 24 di leen sant di leen gërëm ndax nag lii ngeen di def euh, lu am solo la parce ñun artistes yi. ku ñuy maanaam di ñu jàllale au niveau international dañ ci jàpp naam sax fi mu ne nii ñun ku ñu xamuloon tam xam nga waaye li ngeen di def tamit li na olof njaay neen rof yàqul jën rof yàqul jën kon li ngeen di def dañ leen ci ñaanal yàlla ah seen site bii yàlla def ko muy site bu kawe ba mu weesu seen njort macha allah yéen ñëpp maa ngi leen di jë sant di leen gërëm je vous adore merci beaucoup. <laughs>